projet moom du ma loolu moom ooma ci xalaat ni ngeen ko defee na baax ni ngeen jàppee ne moo gën ci ay groupe ci lim def leen ko bu leen topp làppta yooyu nga xam na ay Thierno Bocoum ki ay Cheikhou Omar Sy nga xam ne ñoom ci agenda góor jigéen ba lañ nekkoon ba daanu dugg aar Sénégal mënuñoo seen kër sax ñu faa gañe Sonko sànni leen ca àll baak poussière ñu wër naan Sonko ñu yàqal la bët seen i bët jooy tey ñu taxaw naan oui assemblée bi groupe dañoo bari mën nañ fay ñàkk deux calcul ay calcul école primaire am Cheikhou Oumar Sy naan naan tong-tong ci seen bokkum naan dañoo nan bi dañ ko assemblée bi gâteau la gâteau bu ñuy séddoo ma na ko doomi xaraan ji yow da ngaa lekk ci gâteau bi ba sa lex yi xanaa gâteau bi xanaa da xam ne assemblée bi gâteau la seen bokkum ba ngay fayee ko ci assemblée bi ñu day fay say millions nga nekk secrétaire élu yow sa ñaari quatre quatre gi say oto gi say essence yow seen bokkum xanaa xamoo woon ne boobu gâteau la seen bokkum xamoo ko woon Thierno Bocoum da ngay fay ko say say deux millions salaire ci assemblée bi di fay mille francs impôt Ousmane Sonko ñëw nañu assemblée bi du ñu fay impôt boobu Thierno Bocoum foo ne woon yéen da ngeen ñëw yàppal lan Cheikh Omar Sy ba nga nekkee ci biir yow it nekk ci commission yi di tukki di dem fu la neex sa passeport diplôme ñu dugal la ci agenda góor jigéen ñi yow Cheikh Omar Sy te yaay taxaw fi groupe parlementaire bu naree bari daañu ci ñàkk deux milliards nañ ci ñàkk mille milliards mille dañ ko ñàkk ci assemblée bi ci ay groupe pour que mu équilibré am démocratie am transparence ñun ñooy askan wi ñun deux milliards c'est par rapport ak huit cent millions de Farba Ngom deux milliards c'est par rapport ak quatre vingt milliards yi Mamour Diallo deux nguur gi di sàcc yow Cheikh Omar nga xam ko te mosoo jëyee yàb kenn boo ko musi yëy yàb bi kan ngeen yàpp yéen daal mën ngeen na saa su ngeen toll ci opposition bi ngeen dal fu ngeen toll rek Ousmane Sonko moo xañ jàmm Yewwi seen net da ko bandam boobu na Bocoum ki Thierno xawma nan si ak Cheikh Omar si seen net da ko bandam googu na yem ci yéen bu ngeen ci nekkee tout va bien bu ngeen génnee di xarab ñun taluñu leen Macky Sall nag ngeen di liggéeyal moo tax def li ngeen def di jéem a yàq liggéey bi nga xam ne yeewi askan wi ak wàllu ñu ngi koy liggéey ki taxawal seen ay groupe parlementaire di ko nas ngeen bëgg koo yàq Macky Sall yónni leen ngeen yàq liggéey mais tuuti ngeen ci yàq liggéey waa yeewi askan wi wàllu Sénégal yow Thierno Bocoum ak Cheikh Omar si du ngeen dara Cheikh Omar wax nga ko bind nga ko ci sa Facebook ma dugg fa indi la sama contradiction nga bloqué ma ki saase yow Cheikh Omar si yow yaa ngi joxe ay leçon de morale def say calcul naan daan ci ñàkk deux milliards ci groupe groupe yi dafa bari nañ def ay économie sa xalaat nga joxe teg ci ko taabal ni ma ñëw jox la sama xalaat démontré la sa xalaat bi taxawul indi sama xalaat nga bloqué ma yow Cheikh Omar si yow tu es qui pour donner yee yaayee bloqué ma parce que man xam nga man du ma ñeexum ñebbe wala bu ma nee ñeexum ñebbe ñeexum ñebbe bu saf la man kenn du ma joggi jàll seen tappale yi ngeen nekk njuuj njaaj léegi di suul bukki ak suuli bukki pour am lu ngeen dundee dem leen ngeen liggéeyi te bàyyi seen tappale yi waaye toog Macky Sall leen jox ay enveloppe ngeen di lekk guddi ak bëccëg tam dëmm Ousmane Sonko yeewi askan wi tey leen nelaw yéen dem ngeen élection def seen coalition def seen i programme ki contrat de législature ko anamu ngeen dem gétt ardo dañ leen di tànk ba ngeen tënku soxlawuñu leen parce que du ngeen dara may leen benn député ñu jël kenn ki gën ci yéen ñu jox ko ko muy Thierno Alassane Sall moo ci tane ñu jox ko député ba seen xol dagg dagg heureusement ba moom sax waxul mi ngi ne pat li ngeen di wax yéen seen waxi bopp la de Thierno bokkul li wax du waxi Thierno Alassane Sall du waxi aar Sénégal ñu ñu bàyyi ci xel nag bu ci kenn dugal aar Sénégal waxi Thierno bokkul waxi boppam la ak waxi Cheikhou Omar Sy te ñoom ñaar ñëpp waxoon naa leen ne Macky Sall la ñuy liggéeyal dañoo duggoon ci biir aar Sénégal pour espionner à Sénégal au nom de Macky Sall Thierno Bocoum ak Cheikhou Oumar Sy Macky Sall la ñuy liggéeyal na ko Thierno Alassane Sall xam ak ñu nekk ci biir coalition lu leer laa leen wax samay wax du fanaan àll jàllu muus la day guddee waaye waaye dana fanaan si du ñu nit dara yow ñu dóor la ba ngay bëgg a dee Thierno Bocoum député mënoo koo nekk parce que dëkk mënoo faa gañe Ousmane Sonko rajaxe jaar foofu bombardé leen nga naan pënd Ousmane Sonko bi moo nekk suñu bëti ba ba léegi dañoo wànneen ñoo ngi tuufu léegi maam mënuñoo ximmaliku Ousmane Sonko dafa romb rek pënd ba wuri léegi maam mu yàq suñu liggéey bi da ngay xool li après yéen Ousmane dana bëreet pënd Ousmane Sonko dugg seen bët yi ngeen gëlëm mu ngeen tuufu ngeen ba ba léegi da ngeen a da ngeen a da ngeen a da ngeen a da ngeen a appaloo ko appaloo da nga toog sa kër faju waaye nekk tele Macky Sall yónni leen ngeen di ruubee ka di tasaka di fenn ngir bëgg ñoo jaxase bëgg wan ne wallu ak yeewi wuñu groupe yi ña ngay taxawal seen i groupe groupe bu nekk daan ci fay temps dina mat deux milliards lan mooy deux milliards ci budget assemblée nationale lan mooy deux milliards ci fu ñuy voté finance lan mooy deux milliards ci bu ñuy voté loi de règlement yi lan mooy deux milliards ci foo xam na fan la ñuy voté toutes les lois de ce pays lan mooy deux milliards yoo xam ne boo fëggoon kër Farba Ngom fekk ko fa deux milliards boo fëggee kër Abdoulaye Daouda Diallo fekk ko fa képp ko ànd ak Macky Sall boo ko fëggee fekk këram deux milliards mais loolu Thierno Bocoum du ci wax Cheikhou Oumar Sy du ci wax mais deux milliards bi ñu jéem a wax mooy bi nga xam ne mooy a bon a bon ñi ñoo bon lan mooy deux milliards assemblée buy dox assemblée bu équilibre assemblée bu am transparence bu am équilibre c'est quoi deux milliards na nekk dix milliards waaw dix milliards ñu dem tas conseil économique social environnement tas au conseil des collectivités locales parce que amul njariñ six milliards fait huit milliards fait muy ñaata milliards quatorze quinze milliards ñu jëlee ko foofu indi ko ci assemblée bi benn assemblée bu am doole bu ñu renforcer fay député yi xaalis bu weex tàll utal leen ay assistants outillé leen ba nga xam ne daañu def seen mission de façon correcte moo ma gënal fukki junni yoon ngeen toog di fenn guddi ak bëccëg nan day dolli ko deux milliards kër kër mais du ngeen wax ci HCCT du ngeen wax ci Haut Conseil des collectivités locales du ngeen wax ci CES du ngeen wax ci conseil économique social yooyu du ngeen ci wax de maanaam yéen mën ngeen saa su doon xëy ngi ut loo xam ne day yàqal opposition bi kenn bokkul Cheikh Omar lan ngeen wax ci Macky Sall njunjaaj ñi mu fi nekk lan ngeen wax ci conseil économique social lan ngeen wax ci haut conseil des collectivités locales est-ce que am la xaalis bi yàqoo te du ngeen ci maa ngi xaar ba ngeen génnati kenn ci yéen di wax naa la wax luy tàkk te du fay foofu laa yem ak yéen pour l'instant parce que yéen da ngeen ñu bëgg a dañu nekk ci mode révolution bëgg tabax réew mi bëgg taxaw ngeen nekk ci yàq yéen ànd ak Macky Sall mu leen ger leen jox xaalis ngeen tëdd liggéeyu leen xëy leen fenn Macky leen jox xaalis chaque fin du mois ngeen di lekk guddi ak bëccëg dañuy fontoo naan da ngeen di jéem a yàq suñu liggéey on ne vous laissera pas piétiner nos dynamiques non ànd leen seen i presse seen i médias di fenn guddi ak bëccëg mais on ne vous laissera pas faire nous allons focus sur nos taxawal suñu nombre de commission yi mu laaj suñu nombre de groupes parlementaires yu mu laaj autant que la loi nous le permet le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous permet de faire des groupes parlementaires il faut avoir 17 députés pour avoir un groupe parlementaire c'est le règlement c'est la loi ngeen wax ay waxu budget en ce moment que vous vous occupez donc de du budget des Sénégalais Thierno Bocoum lekk nga ci budget bi ba sa lexi neewi Cheikh Omar lekk ngeen budget Sénégal ba seen lexi neewi liggéeyu leen lekk budget Sénégal mooy seen liggéey ngeen lekk ko ba Sénégal yi seppi seen loxo sànni ci àll ko rationaliser na candidature opposition bi am benn candidat poste assemblée nationale depuis quand Thierno Bocoum s'occupe de l'opposition pour un seul candidat Thierno Bocoum yow boo bëggoon benn candidat opposition bi da nga dem ànd ak Sénégal damay laaj c'est maintenant que de la candidature unique de l'opposition au poste de président de l'Assemblée nationale depuis quand tu dans l'opposition tu n'as xam nga ngeen topp jàpp sénégalais nawlewu leen seen bopp yi nawlewu leen seen mbokk yi nawlewu leen sénégalais yi toog di fen guddi ak bëccëg arrêtez vos conneries ça suffit yow ak Cheikh Omar Sy on ne vous laissera pas faire milliards c'est quoi moo ciy dolliku na nekk mille milliards l'Assemblée nationale est un pôle de pouvoir c'est le pouvoir législatif c'est la centralité de nos pouvoirs le pouvoir ce n'est pas l'exécutif le pouvoir c'est le parlement c'est quoi quinze bu assemblée nationale bu laajee cinquante milliards nañu ko fa dugal d'avoir des députés bien formés des députés rompus à la tâche des députés qui travaillent au nom du peuple et pour l'intérêt général peu importe combien on les paye moi je suis prêt je suis d'accord qu'on paye bien les députés il faut qu'ils soient bien payés bien rémunérés qu'ils soient bien couverts que ñu bañ a am souci mais nag en contrepartie qu'ils travaillent de façon visible ne ñu ngeen toog tey ba ngeen xam ne sénégalais yi seppi nañ leen sànni ci àll ba sénégalais yi bëgguñu leen faluñu leen Thierno Bocoum ak Cheikh Oumar Sy vous ne représentez que vos propres ombres vous n'êtes rien personne ne vous connaît tegu leen ngeen topp ci média Macky Sall yi ñu leen jox xaalis ngeen di xëy suba guddi di fenn guddi ak bëccëg bu leen nit ñi tontoo ngeen di mer di bloqué nit ñi di xattaat ak yu kenn xamul mais bu leen ñu fontoo dañuy dañuy en mode révolution n'a pas votre temps dem leen toog ci palais bi lekk point c'est on ne laissera personne s'immiscer dans notre dynamique révolutionnaire. Nous sommes en mode de changement radical des choses. amul nu waay toll ak foo mën a bokk ñëw dañu ruube yaakaar nañ lay bàyyi nga wax na neex dem toog déedéet Cheikh Omar boole ka nga ma waaye damay taal live continuer li ma la bëgg wax dama koy wax fii parce que ba ma ñëwee ci sa mur di ko fa wax nga bind li ngay bind def calcul ma ñëw ne la yow Cheikh Omar quatre-vingt-quatorze loo ci wax dix mille milliards Alioune Sall yi mu jël ci pétrole be gaz bi loo ci wax limal la limal la limal la limal la ay milliards yi milliards huit cent millions Farba Ngom yi loo ci wax trois mille milliards yi Macky Sall sàcc réew mi loo ci wax limal la lépp ne la loolu loo ci wax nga ñëw bloqué ma au lieu nga tontu ma nga bloqué ma kon naa fekk nga yow da ngay teg dil da ngay ruube opposition bi ngay xeex Ousmane Sonko nga bañ yeewi askan wi Pastef ñooñu ñoo dagg seen xol yi waaw da ngeen ruube nag dugg biir aar Séné aar Sénégal Macky yónni leen fa ngeen nekkal ko fa comme ay pion di ko informer Thierno Alassane Sall xamu ko na ko xam nag bu mu mës a àndata yéen Thierno Alassane Sall bu bëggee dem na leen seppi sànni ci àll parce que yéen amu leen ay ambition yéen ak ñi nekk bois de Boulogne yem da ngeen xëy dem toog taxaw di xaar client jëmu leen fenn togi leen fenn mën leen ko waaye marchandage ak teg lu bi mooy seen liggéey toog télé yi di fenn nekk ci média yi di fenn di bind di fenn di liggéey bu ngeen noppee ñox leen enveloppe ngeen dem def li ngay def xam nañ leen on ko connaît ça ne marchera plus